<laughs> Ah! I feel so evil for laughing at those people. acteur <laughs> ok salaamaaleykum tey <laughs> nag ma kontaan kontaan kontaan kontaan kontaan kontaan kontaan kontaan kontaan ba mel kuñ may fukki junni yi hàngale li ko waral mooy <laughs> Gambia current affairs bi may wax si tey àddina hmm. bàjjo What's a moment? What's a moment? What's a moment? What's a moment? What's a moment? Honey, in e a moment. Aha! So, tey fa lu xew xew tey de depuis àjjuma la xew tey laa ko soog a yëg tey laa toog toog ne xaaral ma déglu Pandor rajo buñ jaale bi le lu muy waxati far tombeel haywile ne kur mu ne mu yéen haywile ñum do yaa Aida men ak Paul men déedéet mu këla haddina lii du ñoom far muy ñoom fay jotee yaa Aida fa jotee Paul di tànciyante ci digg pandëri ba pare nag jotee pandëri ñoom ñëpp a duuloo daal ma ne haa turki jam àddina bàjjo bi xamoon naa ko ne du ngeen si jàmm yaa ay dafa duuloo pool duuloo pandëri ñoom ñëpp ñuy tànc xante ca rajo bële ba pare di rekoo tantee ka weerantee ka jëfuur ak kirisa ka lu ne ñun ko def xaaral ma fecc ba pare soo ko def tey ma koo bañ ba mu ba muur mooy daf ma muuroo rek duma mën a def sama vidéo bi tey day léegi daa subhanallah taxaw leen ma ba te wax li may wax so yéen ñu si bëri xam ngeen ne xatam fii ba roqiloo bu geedoo meeyo xamul lu ko yaa Aida ak Paul ak Lamine Jaay tëhin ñile ak ñeneen ñi waxul carajo paandiri men min duulo he tawde ko faw werante direeko carajo paandiri bole bo yalla sakka di hakkatayde tañci rokkilo di ko ho he politique te horɗelen nde ɗum politique hañana kamade bonla di ko kas kas duggo ɓe kas wajurom yi kas juddum di kas xeeɓem jogee wadda gottudoy politique ñu ne ca di xeex suñ ko xasu suñ xasu xeetam wa it ñu ngay reex ak ñay xas xeetam ba kon ñoom ñoo xas xeetam ba te foog naa sax ne bokk nañ ca doon ñu doon xas xeetam ba de bu dee bokkuñ si because waxuñ ko ni ñu déggit bokk nañ ci ne ña ngi doon ak ñoom ñëpp na ci génn groupe di koolante ca rajo Panderi ba di xas xeetam ba di xàqataay li ma jaaxal mooy maa ñëw pour def vidéo bi tey pour ñu wax liñ ciy jàngale waaye li ma njëkk a jaaxal mooy li ma jaaxal ma ko wax si ak wax li ñuy jàngee ci vidéo bi rek xëy vidéo bi tey bi leen neex soo paree danaa wax si gune góor góor noonu ya ñu noonu ndeysaan yal na ko yàlla xare àjjana ki ñu rey noonu Amérique ci xay su dee xam naa énergie boobu wala fàttali ko naa ko waaye lii moom ma gën a xamal solo man man fi ne ma kontaan da mel ni kuñ taxawal ci kaw àddina si ci kaw asama asamaan si muy muy kontaan ba mel ni koñ taxawal si kaw asamaan si rek laa mel fi ne ndég tax ma kontaan mooy kenn deewut kenn gaañuwut si xaste mi lu du xaste yañ daan def nit ñi si ci noo riisi dib xaste ya moom lañ leen mosal genn wàllam rek ñuy jooy ak rikk kiris moo tax ma kontaan ak ñu jàngale ci hit ak du ma nëbb suma kontaan te gi hit ndax xam ngeen ma man su boo ngeen xas ma ne war ma cee kontaan ma leen koy wax because the reality is du man rek maa ci kontaan ci seen xay wii ndax fañ yàgg a xoñoñal nit ñi di ko xooxee politique waaye du loolu rek li ñu war a jàngee ci sama kontaante gi ak ñoom li leen dal moom laay wax si hit gannaaw bu ma waxee li ma li ma jaaxal soo li ma jaaxal mooy yaa ayda moom ba mu xamee ne fee xuloo Paul ñuy werante di werante di waxante ay nit ñuñ record aka Paul di ko xas di xas juróom-ñaari maamam muy xas Paul ca rajo Panderi bële ba pare mu dëkk ca Facebook live fam ba muy yàgg a xasee ñi ni Ami baraw Ami di di wax ni ñi jànguñ jonguñoog lu ne lim yàgg wax nit ñee anyway xamee ne loolu dana xew mu loolu naqadi ko ba mu ne loolu fa koy naqadi moom su ko waree dund lu tax mu di ko def nit ñi ca rajo Panderi ba xat yi yëpp moom a jaaxal waxtu yi la yëpp yaa Aida bu dikkee direeku ca Panderi di di di di tànc nit ñi ku ñuy tànc yaa Aida bokk ca saka buñ nee roqiloo saka taay mi roqiloo di tànc roqiloo ca palaat am ba fu ñuy tàncee nit ñi mu mu moom moo tax ma maas gi sax ci maas yi yaa ay ci ak ñeneen ñi doon tànc roqiloo tànc yëpp yi ñoo tax sama maas gi man dugg ci politique dugg ci ci dimbaleem roqiloo mi ne xaw ma roqiloo sax tànc yëpp yi laa ko yërëme woon bañ xamee ne ñoom ku leen dem ku tudd seen waajur ci plateforme ak tu jos xas leen wan leen ne ñoom duñ dara comme li lu raw liñ daan def roqiloo ku leen def genn wàllam ñuy kiri sa ka xam luñ ko daan defee politique fii lañ ko fekk ak wax waaye bañ daan go personnel ni dof bu jëfur ci kaw roqi loolu go personnel xàgg ci waa juróom yi juddum juróom-ñaari cosaanam ba nit ñi xamu roqi loolu sax di jooy ñeneen noonu ñi di xeex xeexi ree léegi ba mu xamee ne pandari sef la booba nga xam ne fañ ko jaale xuur na ko xuur yaa ne pandari ku tekki mu xas la comme la mu wax moom ca vidéo bi may déglu nii ne pandari ko tekki mu xas la te pandari daal bëggut a gis ku tekki te nit ñi niti Gambie yi fay war a jóg takkaayu defante pandari ndax pandari ku ku tekki lay bañ a gis sax jigéen ju tekki góor sax boo tekkee mu tànc la ca plateforme ba moom ba mu xamee kon lu tax muy dem ca palaata pa plateforme yi ba di xas nit ñi pandéri handal pandéri di xas nit ñi ba tey nag pandéri xas ko alaaw pool xas ko mu soog a ñëw di wax pandéri ni di wax nit ñi nu pandéri mel nit ñi xam nañ ni pandéri mel jarul mu di ko wax nit ñi fi mu ne kay yow ngay ràcc rek nag daal di wal sa moome wal sa moome ku waaye wal sa moome wal sa moome yaa ayda ayda <laughs> yow démb njaay nga fi dikk rakkati ko mairie yu di bu pii boobu sa tudd yàkkumba xaw ma nan xamul loo ko waxut ci lu ñàkk fayda ne lu tax mu wax ne soose yi nañ nañ jàppante gañe bar yow ku ne nga tudd jàngoo jongoo kilifay nit ñi ngay wax jànguñ jonguñ loolu moo raw li la li la li kii wax ba ngay kiris yow li pool wax ba ngay kiris nga ne Paul fa la saaga ndey ak Paul fa saaga ak nangam nangam ko Paul fa xas sa broda xas sa sa yaay xas sa xaw ma lan yow kilifay nit ñi ngay wax jànguñ jonguñ vidéo boo def vidéo politique boo def wax nit ñi jànguñ jonguñ yaa pandari yéen yéen yow yow ak Paul jànguñ jongoo jongoo mi ngeen di wéyal kilifay nit ñi loolu xaste raw na luy jongo xamoo luy jongo just because yaa ami jobayam jonguñ la xamoo luy jongo man jàng jongo jongo ba ma ko waxee safut ma su ngeen ma ko waxee man moom safut ma man jàngu ma jongu ma xam naa ko te tàngoor man moom suma ñàkk a jong ma cee sant yàlla ndax man maa bugg suma yaram te bugg suma jigéen yaa ngi tàngoor kenn jongalu ko ñàkk jàng bi nit bu ngeen ma ko xasee maa leen ko njëkk a wax rusuma si ragaluma si waaye yàlla sant naa ci yàlla xam naa àngale yu ma dégg yu bëri yoo ne sax ñu jàng ñi sax xam ñu bëri ñu jàng ba primary xaw grade nine la xaw a jaale ñoo xam ne maa leen gën dégg xàngale yu bëri mën naa cee am suma soxla daal mën naa cee jënd kaane géej daal ci suma xàngale soo tàngoon boo doxee gone it jàng mu bañ ustaas mu soxot te yées du jàngal kenn buñ fa xamoon ñu robi yàgguñ ko tuuti jàng xàngale mi ma def bi ma magee la ak tuuti jàng alxuraan mi ma def soo man bu ngeen waxee jàngoo jongoo xam naa ko suma yoon néew ci it Mathieu Prade wax naa leen ko ba pare sama maas yi moom bu ngeen leen xasee loo xam nga seen yéen a mag sax man yaa ay de foog naa yaa may mag de ngaa tuuti rek waaye ku gis sa yaram bii ak sa xeesal bii ak sa loxo yi xam ne ngaa màggat yaw ñeent fukki at foog naa passé nga ko taman ñeent fukki at ren laa koy xam sama maas yi bu ngeen leen waxee jonguñ jonguñ jànguñ jonguñ fa safuñ ko safuñ leen waaye màggat ñi maire yeeg ku ne ngeen ni jàngut jong suñu waxee ngeen ne yu te ñu bëri ngeen dina ko wax sax ñu jàng te jong lañ de anyway eh, eh. léegi yow ba nga xamee ni ngay diree ko ci plateforme yi pandéri bële tañ te nga xam pandéri ni ko robee ak ni mu bonee yaa ayda jàlla yow bët bu set ngay feef feefi ni wantaay gu sibbutu ca palaata pa ca yi pandéri bële di tañ ci nit ñi xànd ak pandéri muy xex-xexi ni seflaab indian buñ robe ba tey nag pandari da alaaw nit ña ñëw tànc la comme na ngay def nit ña nit ña tànc la pandari xex-xex yi daan def nit ña yaa moom ngeen di ko def kiris yow looy kiris ak a këm xam ak a rikiriki yow naaw dalal yaa ayda yow lii ngay def nit ñi xat yi yëpp cere ji ngay siimal nit ñi fi ne moom la la yàlla siimal fi mu ne ñaagal sa cere ji te dallu yaa ayda soo gisee ma wax lii du wut ne sa xas yi nga daan xas roqiloo ba tey moom laa xamee si xol de of course yéen ñi ngeen daan xas roqiloo xas yu ëpp yi ak xas yi ko laamin jaay jayte mu dof mi daan wax te ngeen hànd seek moom ngeen ngeen a dof te soxot ni moom naqari naa ba tey su ma xamul roqiloo bokkuma maak moom dara sax ngir yéen ñi bu ngeen neexoon ci palaas ba roqiloo de ku leen ko def mu naqadi ma su fekkee doomu adama njaay laa jóg sa say xaste ak politique fii lañ ko fekk waaye xaste yu xëpp yu bay xas nit ki cosaanam ak xeet wam jógoo jógee fa xëpp te jéggi dayo te kenn waru koo seetaan sakat yi tuuti li xeetam ba lii ya tax ma mu naqari woon ma torop lii ya tax ma kontaan ci sa ci sa ci sa crise mi ngay crise di xëm-xëm lu xëmoo dara jotu la ngaa waane te naa fekk te jonge ngaa jonge ni tabaxkati nangam fàtte koo bënn te waane ni tabaxkati nangam fàtte koo bënn ngaa jonge ni siit yow déglu yow ya Aida yow yaa Aida ba nga xamee ne Paul góor jigéen moom nga xam ne fay ràccu ci Facebook beeg ninki nankaam yooyu xett yooyu ne ci gannaaw tabax xam bi buy wax xett yooy tiim boppam bi buy wax mel ni ay ninki nankay jalangi Nigerian film yooyu xamul nu ñemee xettam yooyu bu bu set muy diree ko ci Facebook bi di xas nit ñi di xas roqiloo taay bu baax ku ne muy xas nga def ko xarit bi koolanteeg moom dem ca nit kële it di pa di moom def ko xarit di di di kool ca rajo mbay xas nit ñi ba nga xamee ne buñ la yàkkalee ci xañ bi ñu yàkkal nit ñi bu set ngay kiris lu tax nga xaritoog ñoom laa lay laaj si yaa ayda yaa lu taxoon nga xaritoog nit ñi ba nga xamee ne buñ la yàkkalee ci seen xañ bi ngay kiris ngaa foogoon ne duñ la ci yàkkal yaa ayda taxawal ma xelal la luy xaar dina tey gis nga man xam na suma yenn vidéo yu ma daan def in the past yoo ne yéen yéen ni ngeen def sax raw li ma def man de genn wàllam su ma daanoon kaana yi du ma ko def waaye xam na suma yenn vidéo ma def in the past xam ne tax na rek ba man su ma waroon a nekk su waroon a nekk keneen nit ñëw xaritoog man duma ko def time boobu léegi danaa xam ne kii vidéo yi muy def nii ñeneen nit ñi su ko ma neex def su ma xaritoog man dana ma def loolu benn bi su ma meree yow kon sa muus gi ngay xootee xam ko yaa Ayda soo muusoon danga xam ne Paul mii ak ak ak pandari mii di tànc nit ñi ci seen juróom-ñaari maam ci seen cosaan tànc soxot ngir politique waroon ngaa xam ne ñuñ boo xaritoog ñoom ñu def loolu oh kon kon diplomatique mi ngay jaar duwoo ko wel ñëwal ci man ma jàngal la àddina yow yaa Aida ngaa si bututa prestamul xamut waaye fi mu ne nag baxaleen xobi ma lay na te naan ko balañ laa robi <laughs> tënk digg da tënk digg tënk digg da digg tënk digg da tënk ndara digg tënk digg man maa fecc sax yaa Aida nga xam saas ma gëj a dawi te gëj a exercice ba suma yaram wi tayal lu konoon ma pàkkartir la tey et ci sama vidéo yow yaa Aida yow ku la fekk ngay jooy ci rajo bële rajo Panderi ba ngay tànc nit ñi tànc seen juróom-ñaari maam lu ne xat yi yëpp nga dem fa ni ki kët di yuuxu yaa Aida yow fi mu ne li ñu war a jàngee si yow nag laay wax si nit yaag pool yëpp liñ ci war a jànge moo tax ma ma taxal vidéo bi li taxal moo bi ngir suma mbégte mi ci sa crise mi de loolu rek taxul liñ war a jàngee ci sa crise mi tax ma taxal vidéo bi yow sa crise mi liñ ci war a jànge mooy number one benn nañ oytu xaste yi ñuy def xaste dëgg yi ñuy def nit ñi xas seen cosaan xas seen xeet xas seen ndey xas seen baay xas seen juddu mbala ku koy def ñu def la xarit di dem si seen plateforme di like di share just because xandu ñëw nit ki hmm? nañ ko moytu xam ni xàq fay dale number one reason lu tax ñu war koo moytu mooy xàq fay dale ñaar mooy dafay tax ñu am ennemi si Facebook bi ku ñu xamul sax fa ñuy bañ ci internet bi Facebook YouTube fu fu vidéo yi xegg rek fu wax ja xegg rek ku ñu xamul sax fa ñuy bañ man rek li ma xam ci ñi ma bañ ngir suma vidéo yi te man yi seen wax seen wax yeeg seen vidéo yi ngeen di def su bonaayam xaajuma faa xegg sax man suma vidéo yi lu tax ñu bañ ma di si bëri mooy yëpp xeesal bi may wax te suñ jigéen di juróom-ñeent fukk bi yëpp di xeesal ak also yenn yenn vidéo yi ma def comme ça maas yi nii def lu lu hëpp ma ñëw defal defal leen vidéo ne leen lu tax ñu def ko waaye yéen ñi nga xam ne ngeen di ñëw ci nit ñi di leen xas propre dip xas xas seen cosaan xas seen ndey seen baay ba pare di use dip wax yu xees foo wax yu xees xem xam ngeen tàmbalee fa di wax ni ñi ñëpp naan jàngo jongo lu ni kam mag mag nga taxaw naan ko jàngo jongo mais ni ku naan kaar yéen li ngeen xam si ennemi ci ci Facebook bi ak internet bi bu ngeen ko xamul nu konoon yaa Aida da nga dallu ñuy wax nga naan ni ñi la buggut nit ñi la buggut ñooy dem di di di di di di puus pool di lii pool yow yaa Amie Jobe ku la buggut ku ne yaa ko sant bu la bugg kon looy complain ci ku la buggut yow ku la mën a bugg ci ni nga mel yaa Aida fekk wecceeku ko yaa Amie Jobe am jarul ngay complain ci niñ la bañee continuer di dundu li ngay dund rek ba tax nit ñi bañ la rek te te noppi bul jéem a complain ci nit ñi liñ la bañee nit ñi lay laygal di share sa vidéo sax fañ koy like parce que nit ñi ngay tànc ñooñ lañ bañ waaye du wut ne bañ la bugg de juróom-ñeent fukk ba yëpp nit ñi ngay ci ñooñ lañ bañ moo tax ñi di ko like waaye du wut ne yow lañ bugg te nit ñi la nga xam ne fañ la bugg yow sax buñ buggee dëgg gor dëgg danañ xam ne li nga leen di def ku ko defoon seen ndey wala seen mag wala seen xarit bu leen nekk ngir politique du lan du leen neex moo tax ba duñ mën a ànd ak yow si li ngay def kon dallul ci mbiri ennemi yi ngay wax léegi li tax ba ñun ñu war a jàng si lii mooy su fekkee ni ñu ngi jos wax ne parti bi bugguma ko wala ka nekk te parti bi bugguma ko wala suma candidat bi laa bugg mu tax ñu ñëw di ko saaga saaga yu hëpp di ko def ni comme ni ngeen def roqi lu nga xam ne history juróom-ñaar Gambia kenn masta tàncee noonu benn politique candidate si àddina comme ni ngeen def roqilu hmm? ngeen def ko te xamu leen benn reason just because ngeen a xamadi te ruut te buccatiku te dof su ngeen defee noonu duxut ne ngeen di xam ay mbañ rek te duxut ne it yàlla leen di teg xàqi borom rek waaye seen bés fay ñëwaat ni seen bés bi ñëwee tey digg bëccëg digg njolloor ak ndara kàmm sa bés fay dikk ngay kiris di xam sa bañ yay xaqataay di ree dëgg dëgg dëgg dëgg da dëgg da dëgg ak dëgg dëgg lii fa rus lu ma ñëw taxaw di fecc say ronkoñ tey waaye this is the reality ñu bëri ñuy fecc say ronkoñ tey xam na ñu ci xamul roqiloo sax ngir yow du roqiloo rek like I said bu yàggul nii sax maire maire yu di boobu tudd tudd yàkkumba nga ko doon saaga fii di ko wax wax jooj noonu jox ji wax ji nga wax pandari tey naan pandari jongul jongul jàngul jongul wax ji nga wax pandari noonu wax nga ko maire boobu yàggul wax ko ku yow sa wax boobu ñi ngi ko wax yëpp ah moo tax nga bëri ennemi ku wét ku ne su la buggee nga nekk best friend am sax dana xam ne wax boobu boo ko waxoon ndeyam bala bàyyam du ko neex kon du ci ànd ak yow kuy dëgg kuy dund dëgg ku ne moo tax tey bi ni ñi déggee sa ronkoñ ñu bëri reenañ te kontaan reenañ parce que xam nañ ne deexoo dofoo gaañuwoo dara jotu la yàqule xoo xalaat dara jotu la sant yàlla tàngoor li la dal rek mooy sa buccatiku geeg sa xamadi geeg sa ndof gi la la yàlla fay tey moo tax nga yëkki-yëkki ci rajo paandari ba nga daan xasee nit ñi tur ki jam yaa ayda fi ne yaa ayda gis nga xadu naam ndéet fi ne yaa ayda yaru nga dooma sa yaru yaa pool nag soo gisee ngeen di weerante di récordante booy booba tudd oos di record booy booba laa yërëm di record booy ba di di di di defante yàllaa leen weer nag seen soxot geeg seen politique am bu cëtiku mi ngeen nee fi mu ne from now on nag def leen seen bopp nit ak ñu ñuy seetaan tey war a ne ci politique ñu def suñ bopp nit ku ci war a ne ku ci ku ne ci politique wala ku ci ne si ku fi ràngati mu xiis mi ngeen def roqiloo xatal di dem ca panel wala di dem ca plateforme wala def sa palaat plateforme bopp di di tànc nit ñi tànc yópp yi indi ne ma politique fu mu jaar xam dal la digg bëccëg nga dikk ne xikkat ci àddina si nga ko doon xase yëpp doon fi ne xikkat di yuuxu sa yuuxuy bopp yu yoo xam ne is nothing to do with borom sa ennemi ya nga créé yëpp taxaw di fecc li a tax ma ñëw nag pour wax ñun ñu moytu sa maas yi nit bu taxawee dafa bugg a nekk président wala lawyer wala ministre wala whatever wala ku ko nekk ba pare sax like I said xam nga right pour criticize ko criticize ko ak dëgg te xam fooy xem waaye di ci boole juddum ak di ci boole kilifaam yi ak just di go and see it personal soxot wax yi xanaa tey nga xam ne pandri fa bon dafay go and see it dafay goo di dip tey nga xam ne pandri daf dee dem dip dip inside nit ñi seen aduna di leen xas loo xam ne is not necessary tey nga xam te nga xam bi mu la yekkalee tuuti koog rek la la jox koo gi ruy rek la la jox nag ci bagaan ak ruy gi ndaan ndaan dal nit ñi kook rek la si pandri jox yow ngay salaire di kiris yow looy kiris yow tey nga xam ne pandri fa xiis sa plateforme bële defu ko lu du tànc doomu Adama Ndiaye yow tey nga bam la tàncee alaaw nit ña tànc la turki jam baaw kay njorowal jam very good yaa Aida Walla very very very extremely good baña ay jëleen yow tey nga ne pandri fa bon yow yaa ko gën a tay this whole time ne pandri fa bon yow la neex nga join ko xànd ak moom sa mbon nga di dem sa rajo ba di kool di tërërëri wax man pandiri rajo ba du ma ko kool kon ñu robi ko fekk pandiri ngi mel ni mel du ma sa kool rajo ba su ma ko doon kool ñu fay ma fukki junni sax du ma ko kool yow ak nit ña fay kool di tànc nit ña ñëpp mel ni moom a tax ngeen di ko def kon léegi nag tey looy kiris hutil biri ta dallu ta naani meew te xam ne sa ennemi yaa ngi ree a very good te xaqi doomu aadama njaay bàjjen boo ko moytuwut lii xër ci lii xër li gën a tuuti li lay dal yow ak nit ñi ni yow salaam wax naa la ko fi mu ne moo ñëw jàll si mbiri gudde góor am moo ne Amérique ma ñëw jàll fi ne si mbiri gune góor gi ne Amérique fi ne ma ñëw jàll si mbiri gune góor gi ne Amérique te te te gaañu ci lii ndeysaan ñaari wax laay wax du mbiri gune góor gi ne Amérique te gaañu si lii rek fa beneen vidéo bu ne si ci Facebook bi ñu ne fa bu ne ci Facebook bi nekk gune ak jigéen jànq jànq bii de fa mel ni fa am problème waaye danaa wax mbiram afta waaye ma njëkkee gune góor gi gune góor gi gune góor gu rafet la te njool te ñuul te rafet ndeysaan gis naa ko ñu def na taalam bi Facebook di ko tasaare dem ba tey ñu def police yi ko rey ci xeex bi protest mi ñu def Amérique li tax protest ak seytaane baaxut li tax protest ak seytaane baaxut ndax boo ko jëm boo ko yëkkatee xamoo fa muy mujj fa mel ni lii laa xamoon bi ma doon def vidéo bi ma def nii vidéo bi ma séddoo nii tey defoon ko depuis depuis démb di wax mbiri na nit ñi ba na nit ñi ba na bu nit ñi jóg bokk ci xay wi rek di ko di ko fajee xay fa ni lii laa xam ne suma own Gambien boo def na si bokk xay wi bu xewee ñëpp jóg bokk si di ko fajee naqat naqat du faj naqat su la nit defee lu metti jàppal si yàlla te muñ yàlla moo koy faj boo koy fajit xamal foo xem waaye bul wax ne benn la def mais def fukk ndax fukk yooyu xamoon na dara duy téeméer xay wi nit ñi koy fajee naqat liñ ci yàqal ay nit ci seen marchandise liñ ci yàqal ay nit ci seen bitik nit ñooñu rek stress mën na leen a xaruloo yow benn niiw bu la taxee di xare téeméeri niiw fi mu ne ñooy dee si yow sax mën nga see bokk loolu du faj dara ngir yàllaa yonent ba su beneen yoonee ne lii passé na ba pare ak xay wi sax foog naa am ngay continuer ba tey yéen ñi dëkk Amérique ku ma gis buy kenn la sax koolal ñi nga xam ne leen buñ génn ci xay wi di doon di démontrer ndax yow boo génnee te jàmm la tax a jóg ñeneen ñiy génn jàmm taxul leen a jóg te fa ñuy jël ay drogue sax bala ñëw jóg te mën nañoo def dara dara loola jut la leen jëlal leneen jut leneen ba yow mën nga see gaañu xaale boo xamul saas toog leen seen kër yi te ñaan xay wi dana dal si jàmm doomu aadama njaay yi bañ doomu aadama njaay fu ne la ne dina juróom-ñaar la ne soo demee gàmbi ya sax Sénégal Mali foo dem xam na nit ñoo xam ne bëgguñ yeneen xeet ya fa ne wala fas fa ñu tànn façon ngi xeet yoo xam ne yooyu leen gën a bañ waaye nag yeneen nit ñi bañ yeneen nit ñi fañ koy defee differently ñenn ñi fañ koy defee nii ñenn ñi defee ko nale waaye ñu nu neen sax bokk bokk benn Gambie wala benn Sénégal sax fay xam ñu nu neen ñuy bañante waxantuma laat nag euh, yeneen xeet di ñu bugg wala ñuy bugg yeneen xeet doomu aadama njaay noonu la mel te xam na yeen doomu aadama njaay yoo xam ne seen jikko yi ñuy def mooy tax ba yow pour nga bugg sax fay jafe xanaa nga dox xarikat dëgg te xam ne xoli xoli xoli yërmande dëgg ak xoli mbuggeel dëgg kon nag bu leen di ne xeet yi bugguñu xeet wala bugguñu fan ñu war a bugg jarul ngay forcer nit ñi pour ñu bugg la yow sa dëkk sax boo fa demoon danga xam ñu la bugg ak ñu la bañ seetaan leen nit ñi rek te ngeen di julli di ñaan yàlla musal leen ci seytaane su ngeen di faj xay wi faj leen ko si jàmm rek ak dal ngir yàlla dëkk bi ni mel nii ci xare rek ak ci feebar bi rek doy na waaye bu ngeen ci ràngee xare it du du ñu jutal jàmm te suñ gune yi buñ leen jàngalee bu la dara naqadee ngay jóg xare gune yi buñ jàngee la du leen jutal jàmm góor gi maa ngi koy ñaanal mu rest in peace yàlla may ko xar jana ju dal te sedd yàlla bu ci keneen gaañooti yàlla na xay wi xem fii yàlla na àddina si yëpp xam jàmm doomu aadama njaay jàng nu ñuy buggee gi nga doomu Adama Njaay bu fekkee sa xel maa ngi wét hmm? te nga xamee mbugéel ci sa bopp bugg xàddina si gëm yàlla bu dee xam nga yàlla ah? doo bañ nit yenn bañ yi nga xam ne yenn yenn yu soxot yu xiis yi nga koy xegg ak muy rey la muy leneen lu mën ci dox xam na ñoo xam ne duñ la rey waaye li ñu lay defa rey soxot xam na nit ñoo xam ne liñ doon def req roqiloo ak liñ def yeneen nit ñi ci boppam ci àddina moo raw jël fetel rey kenn ku ne sa soxot nga koy defee beneen boor that's the reality waaye doomu adama njaay yi soxot dañ bëri te ci xeet wu ne lañ ne Afrique xamuñ feteel waaye li ñuy liggéey nit ak li ñuy wax nit ci wax yu ko mën a tax a xaru ak a bëri li ñu yàq àdduna nit ngir wax ak li ñu yàq àdduna nit ngir liggéey wala jaxase wala jàmb walla jos neglect wala jos yu xees yi ñu def nit moo raw feteel doomu adama njaay bu bon fu ne la ne nañ leen xam nii ngir yàlla yonent ba te ñun nañ xam ne indi indiwuñ fi suñ bopp yàllaa ñu fi indi waruñoo jël bakkani do doomu aadama njaay waruñoo jël suñ bakkani bopp waxuma laa doomu aadama njaay so nañ leen jàngal suñ doom yi loolu jàngal suñ doom yi bugg nit buñ toog suñ néeg yi di ataaya di warga di wax nit ñi gune yi naan di waxtaan naan xeet nangam baaxuñoo xeet nangam bugguma leen xeet li gune yi di ko dégg xëllëg a ki si mën nañoo magee noonu te seen bakkan mën nañ ko see ñàkk wala ñu rey nit te di kaso ngir loolu ndig suñ magee di dégg seen waajur di leen ko wax bu set saka ñun ñi xamee doom di ñëw toxoo doom ja di ñëw toxu bitim réew di fi jub doom suñ xamee ne tubaab yi noonu lañ ñu bañee kon te xóoluhuñ leen te ñoom ñëpp ñu bañ te xóoluhuñ leen noonu kon nañ ñibbi suñ dëkk suñ doom yi seen xel mi dal waaye buñ leen yaree fii te wan leen ne ñii bugguñ leen te te ñii foo wicc fañ lay rey te ñii ñoom ñu paxem ñu xiis leen ngee eh, ba gune yi di freak out gune yi duñ mën a dal jàng xam àdduna bu baax nekk nit ku baax fa ñuy mag ak ak tiit ak freak out tiit ak ak soxot la ñuy magee fuñ toll rek ñu ngi pare pare pour rey nit wala pare pour kaar loolu mën naa dof loo nit sax mbala mu def loo nit li mu war def so nañ leen xam lii bu ñuy toog di jàngal gune yi ba ak bañ nit because ñu ngi nekk di wax nit ñi ni ñu bañee xam nit ñi nuñ mel ak ngee déedéet sa doom yu fekkee ni nit wan na leen mbañeel sax nit ku weex wala nit ku weex te whatever na xam ne nit ko moo bon bonam ndax Afrique sax nga fay dem nekk fa di jàng école wala nga dëkk dëkk fa gis sa moroom nit ku ñuul bu la won mbañeel ba di la xasee ñuulaay wala mu di la xasee nangam nangam gune nga ne fekk gune gu ndaw nga jóog sa saay so doomu adama njaay su meree lu ko neex la lay wax dafa des si moom rek mu xam fu muy xem ak doomu adama njaay boo xam ne it dafa xam problème ak boppam kontaanu si xadunaam boo ko deful dara sax fay ñëw rek won la mbonam ak ak mbañeelam for no reason because métit lay dund kontaanu ku kontaan kontaan te rek lay wone so nañ leen jàngal suñ gune yi loolu bañ xam ko rather than di leen jàngal dis ñuul ak bulu ak vert ak you know this thing loolu du leen dimbale Amérique li tax ñoom seen nit ku ñuul jikko yi gën a gën a gën a gën a gën a mel nii there's a lot more to it you know dinaa def special video about it su ngeen buggee ma def ko waxal leen ma because su loolu video bi dafay gën a gudd waaye soo seen nit ku ñuul seen nit ku ñuul maanaam nit ku ñuul seen nit ku ñuul ak tubaab diggante seen diggante nit ku ñuul soo gisee mu gën a mel nii there's a history there's a more to it than da da but like I said yëpp du mën a xaj fii su ngeen buggee ma def si vidéo waxal ma dinaa si def vidéo waaye mbañeel moom fu ne la ne doomu Adama Njaay yëpp la léegi laa fi wax roqiloo bu mu doon def campagne nit ñi niñ ko wanee mbon mbañeel dëgg te roqiloo mosu fee wax lu bon lu ko nit ñi di bañee depuis day wan dafa xam nu muy waxee nit ñi ndax Roqeelou business woman la woon already te dafa xam yar in general ku ko xam-xamee na ko loolu wax nit ñi njëkk ak teraanga wax nit ñi ak yar noonu la fi nekkee the whole time waaye lu tere nit ñi yàpp ko di ko tànc from day one for no reason tànc waajuram it deep strong tànc personal tànc yoo xam ne kenn mësu koo gis ci àddina mel ni ay nit ñu jëfur so dañ leen xam ne dafa am nit ñoo xam ne dañ am problème seen bopp ñoom seen bopp suñuy wonee ñoom seen mbon ak seen soxot ñun nañ xam nuñ koy xandulee waaye ñun suñu rakkaaji rakkaajoo topp leen bakkan mën na see des te ñoom jaruñ ko jaruñ bakkan yi ciy des yëpp ndax wétuñ léegi damay muur si jànq bi nga xam ne moom moo xam moom moo xam vidéo bu nekk Facebook ba am benn jànq gambien bu vidéo am ne Facebook moom vidéo ba séddale wu ma ko man du vidéo yëpp laay séddale waaw jànq gambien ba day war naa nekk ku xam fukki at ak juróom fukki at ak juróom benn something like this I don't know wala xëy na ëpp na loolu mu ngi du def ibaadu nii def vidéo di wax ne fa bugg si àngale la ko doon wax fa bugg nañu yóbbu ko Gàmbi mu ñibbi jëndal ko ticket mu ñibbi ndax moom jullit la waaye mbokkam yi moom ni mu nee si yàlla ji mbokkam yi bugguñ loolu waajuram di wax daal de tudd yàlla wax laa ilaaha illallaah staf yéen ñii séddale vidéo ba leen ko bu leen séddale vidéo ndax number one fooguma sax ne plane yi ubbeegum nañ Gambia right naaw foog naa ne ñu si tëj mi ba tey kon léegi ku koy jëndal ticket muy jànq bi ko dégg nu muy waxee koo gis kanamam bi nga xam ne foog naa ne fukki at ak sax xamu ko yow doo ko mën a jëndal ticket te kenn du ko te loolu du ko dimbalee daal dafa mel ni ku ku xam stress tamit ku ku gis lu tax muy ñëw Facebook di yuuxu naa jëndal leen ma ticket ma ñibbi Gambia ndax suma waajur yi understand yu suma diine ji loolu it's not just because yow sa diine ji la sa waajur understand is dafa mel ni dafa am naqat beneen naqat behind dafa mel ni ku ku ne ci problème ku you know ku kuy dund naqar ñun suñ doomi bi Afrique yi suñ doomi ñun Afrique yi ne bitim réew suñ doom yu bëri naqat la ñuy dund that's the moo tax ma dee sama vidéo yi may def saa yi ne di wax mbiri góor ñi nañ nekk góor yu baax si jigéen yi jigéen yu bëri ñoo stress tey dund naqar seen néeg yi ba mënuñoo yar doom ju amul naqar that's the reality that's the sad truth su ma yenn wax yi suñ lakk rek laa koy mun a ndax duma ko mun a si àngale dafa ruslu ndax ñun suñ góor yu si bëri dañ leen yar si dóor ak gëdd ak ñàng door a gëdd ak ñàng googu ba seen xol bi tërkiis duñ mën a bugg jabar def seen bopp nit wàccee seen bopp wane mu génn seen kër si kët gi daal defante ak soxot ak ak sàgganee jabar ja ak dóor gune yi dóor jabar ji yuuxu ah tongoo defante ñàkk leen a defal daal seen kër yëpp loolu rek la jabar ji dafay stress di ngàdd gune yi di leen yuuxu gune yi xamuñ xamuñ happiness dañuy traumatise moo tax lu ndaw rek ñuy yuuxu di di rikki di rikki rikki so vidéo boobu is beyond just kooku mbiri yàlla nanga déedéet ku ko gis te dégg kooku li muy wax sax nga xam ne bu léegi dafa am problème ndax yi mbiri yàlla bi mu doon koo wax saar yi mu si doon wax sax comme kuy nodd kuy wadan kuy nodd façon yi saar yooyu la doon nodd lifin yooyu la doon wax te loolu sax nekku doon di ko wax ko rek moo ami jowaayam ci yàlla yi so yàlla joo xam ne nga see ñëw xeex di ko jàng rek loolu warta tax ba nga ñëw Facebook di yuuxu naan jëndaleen ma ticket ma dem there's more behind it xam na lu bari lu si ne luñ xamul nañ leen yar suñ doom yi ak mbugeel may leen ñu jàmm yéen góor yi ñun ñu mën leen a sëyal nekk leen góor yu baax si ñun ñu jigéen ñi ku si xam naqat ba mën wax nekk yaay ju baax fexeel nga xeexal sa naqat wi xeexal sa bopp jege yàlla di julli di ñaan jege yàlla gi rek mu lay dimbale te li ñu des sooy sori yàlla gi di sàgganee julli mbala sooy julli di kër képp julli gi mel ne sa yoon new si du la dimbale julli si bi jege yàlla ji te jéem a fàtte naqar wi muufoon from naqar wi jarul nga koy fàtte di ko daw like for exemple doo ko mën a daw dund nga ko waaye nangu ko te xam ne lii daal na la passé na waaye léegi lii is nothing to do with yow léegi li nga war a xam wala li nga war a xam suba forcé te stay positive I'm telling stay positive bi is is the best waaye it's very difficult dafa naqadi nag su fekkee yaa ngi dund naqat pour nga stay positive is very hard ba deel forcé saa wu sa négative mind bi ñëwee rek forcé nga nga ñu nga nga nga nga combat to reality cause the reality is àdduna dafa xam yu baax yu bëri even doo xam ne yu bon yu bëri so yu bon yi nag bu la njëkkee attaque sa àdduna daf dee xaar pour nga believe ne yu baax yi danañ ñëw waaye forcé rek te nga ñaan yàlla baax na te nga xam ne su fekkee yaa ngi nekk ak naqar woowu te nga xam jëkkër joo xam ne dafa bon si yow di yokk naqar bi gune yi soo muytuwul seen àdduna dina yàqu parce que yow yaa ngi xam naqar boo dund already wala yaa ngi already dund naqar right now sa jëkkër di la si yokkal yeneen naqar rek di la stress yéen jigéen yi xam ne it yéen la neex rek ngeen nekk jigéen ju bon waaye xam ngeen jëkkër ju baax yéen moom xamul lu seen problème parce que soo xamee jëkkër ju baax joo xam ne mu ngi lay woon buggeel di la fa nekkal di fa nekkal sa doom yi ah façon yi naqar boo mënti dund si àdduna war naa mën a dem nga sa jëkkër ak sa doom yi te xam ne xam nga lu ne fi mu ne ndax doom yooyu mën nañoo mag nekk lu ne si àdduna waaye soo leen di yar ak naqati ak ak ak ak ak strict ak ak ak crazy fa xam nañ chance pour seen xadu seen xel mi yàqu seen xel mi yàqu seen xaduna yàqu su leen yàlla dimbaliwul so léegi foo ko sal si xale yooyu nga jëm leen a yar nga jéem leen a wan mbuggeel da nga fàtte mbooleem lu tax sa xol bi def noonu waaye fekk ñu ngi yar suñ doom yi ci sutura sutura yi ñuy def nii suñ kër yi tàkk ñu di ko sutura fekk ñu ngi yar gune ci ci kër yu bax yi ah gune yi suñ magee rek dana danañ dëbb danañ dëbb àddina si yëpp yëg ko danañ yuuxu jendeng wala ñu def drogue wala ñu def lu bon ràncaan àddina si yëpp yëg ko duñ xam seen valeur duñ xam happiness duñ vitamine sax pour tekki seen yoon new ci ba bànneex rek la ñuy wut ak lu leen neex ak jos revenge revenge mooy fayeeku so nañ leen ñaan yàlla may ñu kër yu baax yu dal yu xam jàmm yu xam mbëggeel ndax ñu mun a yar gune yu baax yu dal yu xam jàmm yu xam mbëggeel kuy dund naqat fexeel ngay julli ngay xeex ak sa naqat yi dana dem incha allah nañ leen ñaan yàlla xaddina si yàlla may ñu dara nañ leen xam ne yenn soxot yi ñuy def nit ñi deep down just because of politics or whatever fay ñëwaat si yow jóg sa saay mu dal la digg bëccëg dara kàmm àddina si yëpp di ko gis typical yi fi soxot nga ànd seeg moom dana la ko def digg bëccëg dara kàmm àddina si yëpp gis la so lii laa bëggoon a wax tey te yal nañu yàlla musal si seytaane musal si mboolem doomu aadama njaay yal na yàlla dalal àddina si yal na yàlla génne feebar bi yal nañu yàlla wecci wecci xol yi wecci just everything else and yal nañu yàlla may understanding ba nga xam ne kenn koo xam ne mu ngi def yi fi dafam sax yow yàlla dana la may understanding pour nga dal pour nga mën koo baxal wala nga man a understanding kii kañ ne dafa am lu métti lu muy dund instead of nga ñëw gën koo rakkaaju so yal yàlla may yéen noonu yëpp jërë ngeen jëf si vidéo yi ngeen di seetaan and dinaa leen gis beneen yoon incha allah and <laughs>